مخافى محمدي رسولا وعبدا للكريم المكرم asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi ñu leen di dalal jàmm fii ci Thiès Thiès kër Serigne Mourtala Mbacke ibn Serigne Saliou Mbacke ngir dundal bis bu tedd bis bu màgg bisub ku màgg bisub ku tedd di bisub gàmmu màggal guddik ganek yonent bi alayhi salaatu wasalaam àdduna niñ koy dundalee at mu jot noonu lañ ko dundalee fii si kër gu tedd gi biñ ko dooree ak njàngum alxuraan ak njàngum xasida si suba gi loolee ñu ànd kook mbooleem ñi nga xam ne ñoo di ay taalibe yu jóge si gox yu feccantikoo ñëw ngir dundal bis bu tedd bi ànd kook sëriñ bi زائدا خير منعم فمن شك في كون المخفى رسوله فلا شك في إخراجي من تنعمي ko xasida yi ñor ñor gu ko alxuraan ñor Serigne Mourtala Mbacke ibnu Serigne Saliou ginnaaw njàngum mbooloo mi moom it daan nay génn barkeelu ci li nga xam ni moo di alxuraan ji moom sax moo jàng xatnu bi ñaanal ñi nga xam ne ñoo fa teewoon ñëpp saafonteeg taalibe yi. alayhi salaam

bis bi di fursa si mbooleem taalibe yi mbooleem daayira yi mbooleem mbooloo yi nga xam ne jóge nañu fu nekk si réew mi saafonteek sëriñ bi sëriñ bi dalal leen si xol bu yaatu dalal leen si mbégte dalal leen si bis bu tedd bi ñaanal leen saafonteek ñoom waxtaan ak ñoom nemmeekunte ñi nga xam ne ñoo di mbokk yi waaye tamit ñaanal ñépp

bisub màggal guddi gan ak yonent bi ku ko wax wax jàng alxuraan wax njàngum xasida waaye it wax bernde ni ñu xamee yoon wi xamee ko màggal guddi gi ni ko sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba diglee waral bernde yi yaatu lool wàññi góor yàlla ko soxna yi ñëpp takku taxaw ngir jox bernde yu mucc ayib mboolem ñi nga xam ne ñoo teew ci bis bi bernde yi yaatu na ci bépp anam aouzu billahi mina sheytaan rajim bisimilahi rahmaan rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk taalibe yi ñu ngi leen di ziar bu baax te di leen jox seen wàccuwaay ñoo ngi jégg lu baax tamit ci kàddu yi ñuy yëkkati di mel ni kon dañ ko yëkkati rek ci turu mbooleem koo xam ne mu ngi ci biir waañ bi di ko yëkkati tamit ci turu ñi nu àndal liggéey bi yëpp di nuyu ñi nga xamante ni si ñoom lañ seqal jotaay bi ku ci mel ni sëriñ Serigne di Diop mi nga xam ni mooy jëruñu géejawaay doon ku jàmbaare ci liggéey bi xëy na moom ay kàddoom dina ñëw fësal lu jëm ci wàllu liggéey bi nga xamante ni si jot na fee tàbbi te lépp jëm ci gàmmu gi di ci toftal soxna Asu Diop mi nga xamante ne sii mooy jëwriñu soxna yi waa Thiès ak ki nga xamante ne sii mooy soxna Daba di jëwriñu soxna yi waa Géejawaay kon ñooñu leen seqal jotaay bi ngir fas ni koo leeralee rek liggéey boo xamante ne sii moom lañ jot a seq te lépp rek jëm ci liggéey bi nga xam ne moom la ñuy liggéeyal sëñ Moutala mu Serigne Saliou xëy na ñi ngi jéggalu ñëpp sax ndax laataa tàmbali gi ñaanal ko muy yàgg fi te moo jiitu woon te ñu ngi koy feddali di ko ñaanal suñu borom dolli ko wér te kattanal ko bu baax a baax ba li mu am yéene liggéeyal sëriñ bi yëpp mu def ci loo xam ne dina kawe njortam te mu amee ko ni mu ko bëggee lépp rek ñu ànd ko ak moom. kon xëy na kàddu yi mën naa bañ a gudd ñu jébbal ko sëriñ ma Mamadou Diop xëy na moom bu ko jotee lépp lu jëm ci wàllu leeral lu jëm ci liggéey bi ak liñ fi jot a def ba fii liggéey bi toll xëy na dina ci indi mën a mën a indi ay leeral yu yu mucc ayib ñu ngi day jéggal bu baax a baax day jéggal jébbal kàddu gi sëñ Mamadou Diop kon sëñ Mamadou Diop bisimilah. waaw bisimilah barki borom Touba ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaare te leen di jox seen wàccuwaay waaw di jaajëfal suñu jëwriñ jii di Assane Fall nga xam ne moo jiite daayira bu buun eh, ci kaddu yi eh, di ko santaat bu baax it ci liggéey bi nga xamante ne moom lañu ànde ñëpp nga xam ne waañ wi moo ciy jëwriñ ginnaaw Manel Fall mi nga xamante ni mooy suñu jëwriñ ñun ñëpp eh, di ñu jébbal kaddu gi ci ñu war a mun a wax ci li nga xamante nii mooy euh, liggéey bi waaye di nuyu soxna Asu di nuyu soxna Daba nga xam ne ñoo àndee liggéeyu sëñ Moutala mu Serigne Saliou bi fee ca Géejawaay euh, di leeral rek ay liggéey yoo xamante nii moom lañ xëyee tey ci waañ bi ndax bi ñu xëyee ci suba gi togg nañu laax jox ko mbokku taalibe bi ñu wàccee kaamil ba pare ñu xéwloo ko ginnaaw loolu togg nañu ay ñam yu xéwale ci eh, ci ci ci pàcc yu varié lu ci mel ni ceebu ndawal. bu weex am na fi ànd ak ay lam war a àndal lépp lu ci mel ni euh, ceebu ndawal bu xonk ànd ak ay lujum euh, niñ ko baaxoo defee ci maanaam kër gi nga xam ni bernde yi moom dañuy bëgg mu mat ci ñëpp ku bëggul lii ñu jox la lee lu mel ni yooyu nga xam moom laa fi lim ak lu mel ni ceebu jën ñu ànd ak moom la mu war a àndal lépp lu ci mel ni yaasa it maanaam ñu naan ko yaasa de tons boo xamante ni ñaari façon ñànkatang lay am te ñaar yëpp dañ leen di boole ci benn palaat bi mu doon lu mu rite loo xamante nii moom lañ fi def tey maanaam ñu jox ko mbokku taalibe yi mu doon ñam yu mat sëkk yoo xamante ni wax dëgg yàlla la mu laaj lépp def nañ ko ci. ginnaaw loolu ñun ñu jublu ci reer bi ndax tey yàlla dogal na dañoo xaw a guddee ndax liggéey bi satiré bu mu satiré waaye bi bi ñu paree ci loolu it maanaam dañu fee taal maanaam petit pois lu mel ni lim bu takku taal nañ ko fi lu mel ni vermicelle tamit taal nañ ko fi waaye liggéey séddale ci suñu biir nga xam ni moom Assane Fall moo féete woon ci genn wet gi nekk ci lu mel ni petit pois bi ak yamu àndal man ma féete woon ci genn wet gi nekk ci missive bi ak yamuy àndal ba suñu borom dimbali ñu ba ñu yegg si fii tey nga xam ni liggéey bi daanaka yemm na maanaam liggéey bi daa am nu muy doxee ni muy doxee nag mooy saa bu ñu toggee xéwal yi ba pare dañ koy jox ku mel ni sidaat nga xam ni moom ci daayira bu mbuur la bokk maanaam moom day ñëw daal di koy séddale ci anam yi nga xamante ni moom la ko sëriñ bi diglee te muy joxe ko ca doo ci am xàjj ak seen doo ci am kii da cee bokk wala kii bokk ci képp koo xamante ni fekk nga ko rek maanaam dañuy sëriñ bi day bëgg mu maase ci yow. bis bi wéy ziar yi wéy mboole mi jóge fu nekk ñoom ñëpp ku nekk fësal sa yéene fësal sa coloré fësal sa mbégte teew si kanamu sëriñ bu tedd bi sëriñ Mourtala Mbacke ibnu sëriñ Saliou moom it amal yéen a jojee fësal mbég moomee dund ak ñoom saafonte ak ñoom. ñaanalante jokkalante kóllëre waaye tamit gën a dëgërante li nga xam ne moo di diggante yi على المصطفى خير البرايا محمد صلاة الذي ak set sell berne yu yaatu ñëpp xame nañ ko kër gi ñëpp xame nañ ko bis bi ñëpp xame nañ ko sëriñ bi waaye it ñëpp xame nañ ko njabootu sëriñ bi di berne yoo xamante ni bii bépp xeet lañu fi indi ngir bégal ñi nga xam ne ñoo fiy teew ay góor ak ki jigéen ñu takku taxaw lépp lu fi nekk di ay taalibe ñoo ko taxawal ñoom ci boppam ñoo indi lépp luy matériel ngir berne yu yaatu di ay jumtuwaay it yu bakkane yoo xam ne danga koy séentu ci dalwaay yu mag yi nga xam ne moom lañu dalal kilifa yu mag yi ci àdduna lépp ñu indil ko taalibe yi fii ngir ñu mën koo dund mën a dund li nga xam ne moo di bis bi mu ànd ak mbégte ak bànneex ànd ak tawféex gu yaatu لمن أنزل الآية التي قلت لي كتاب العزيز البين ينال قلب الفضل مثالي والأوثان وعبد الملوككم وعبد طوري ونفسي بالبين نور ربياتي وعلمي وخدمتي ورؤي وجمالي وكل بلازمي لا أنت الخليل لي ويا خير ذهبي وثرواك لم يخلق ما في السماء كله wa rahmatulah mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare lu bu baax fii nag day barab boo xam ne barabu sëñ Mourtala Mbacke Serigne Saliou la tey jii di bisu gàmm bokk ci bis yi nga xam ne mooy bis yi gën ci bis yi di bis boo xam ne bis bu am wàccuwaay la ci sëriñ bi fii nag di barab bi nga xam ne ñoo yor liggéey bi jëm ci wàllu woowu lépp loo xam ne mooy restauration wu sëriñ bi ay ganam ay wëllëreem ak nitam ki taalibeem fii mooy barab bi nga xam ne fi la ñuy xewloo ñun ñoo ko yore nag ci ci njiitul sëñ Modou moo Modou maar nga xam ne moo jiite moo jiite liggéey bi donc lii nag moom ñu ko gisee nii lay demee màggal nii lañ koy defee gàmm nii lañ koy defee bis yi nga xam ne ay bis yu spécial la ci sëriñ bi tamit nii lañ koy defee ñun ñoo koy ñoo ko ñoo ko yore lépp loo xam ne mooy mébatu sëriñ bi lu jëm ci wàllu restauration ñun la ko dénk ñoo koy ñoo koy doxal ci ni mu ko bëggee lu mbiru kenn nag mbiru sëriñ bi la moo koy wax ni mu ko bëggee noonu rek lañ koy defee waaw lii daal mooy mooy mooy mooy mooy mooy jataay bii mooy barab bi mooy nit ñi nga xam ne ñoon nga fi gis donc ñëpp yi nekk ay waa këram nekk njabootam ñu tàggat leen ci lii ba nga xam ne ñu ngi koy defee ni ko sëriñ bi bëggee amuñu ci xalaat amuñu ci dogal sëriñ bi rek mooy mooy dogal ni mu ko bëggee noonu képp lañ koy defee jërëjëf وكل ما لقد berne yi ñoom rek ko tax a jóg gan yi jóge fu nekk bi ñu ñëwee taxawu nañu leen ni mu waree salaam

borom appareil bi moo la war a may amiin amiin yàlla na yàlla suturaal. amiin barke Xaadimu Mustafa. amiin sa barke waajur Cheikh Sadio Mbacke. amiin Cheikh Moutala. yaa ñu man fii yaa ñu man fa ñu jëm yal na nga fi yàgg Mbacke. amiin amiin yal na nga fi yàgg Balla Issa. amiin jërëjëfati Mbacke yaa. amiin amiin yow buñ la amul woon xaw ma fu ñu jëm. amiin man xaw ma fu ñu jëm buñ la amul woon xaw ma fu ñu jëm ñun ñii. jërëjëf Balla Issa yàlla na nga fi yàgg. yal na nu yàgg teew fii. yàgg la fee fekk. barke yentu yàlla Muhammad sa barke maam di baax di baax bi Cheikh Saliou Mbacke amiin amiin jërëjëf dundal bis bi waaye it dundal guddi gi ndax guddi ganek àdduna bi yonti sallallahu alayhi wa sallam wax guddi gi dundal ko ni ko Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba digle lii di nataal ni ko Serigne Touba doon màggale si diwaanu Njaareem ak ñetti kuréel ya jazbu muwaahibu muxaddimaat teg si basan bi lépp ngir màggal guddi gi waaye it teg si li nga xamante ni bii moo di ay waxtaan yu am solo waxtaan yu del siwaat si jikkoy yonent bi alayhi salaatu wasalaam fàttali am meloom fàttali am njàngaleem tegtaloo ci njàngaleem sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba boroom xam-xam yi ñu ràññee am fasaaxa lool amal yooyu lay jataay ku dëkk fekk sab jataay nga foo xolam muy ngën ngi waay bañ naa la rang may médaay wat naa ni mat nga saaliw def li nii ñu màggal Cheikh Saaliw ku dëkk fekk sab jataay Cheikh Moutara Cheikh Moutara Cheikh Moutara بسم الإله يرتقي ساء وين من لسيدي وسيلتي موي سندي شيخ مرتلى سيرين ساليو نندل غرام ناكو تقل كوخوتي باخ تاي فسال تساب غلاج دلو نيوكل شيخ مرتلى ko man woy naa la tey Cheikh Mourtalaam Cheikh Saaliw bu dee si diit day rogalaan ma xam li mbër nga nan xalaat bambay samaam nga dil siwaat di jaatu mbër ma saaliw taala ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi alkiram wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin ñi ngi sant bu baax euh, di gërëm euh, di tàmbulee ci euh, kilifa jotaay bi sëriñ bi cheikh mouhamadul mourtada mu sëriñ saaliw di ñaan sunu boroom mu yàggal ko fi lool te wéral ko yàggaleel ko ay naalam mu tàmbali yeneen sax ànd kook ñun ñëpp barkeb sëriñ Touba xam naa ne waxtu wi xatna bu ko defee dañuy tënk rek lu gàtt jox euh, Serigne Abdoul Ahad Bousso mi nga xam ne moo ñu war a defal euh, njàngat ci guddi gi ñu nekk tey njàngat li jëm ci jikkoy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ah, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne moo waral guddi gi tey nga xam ne ci la gane àdduna yàlla sunu borom bi mu koy tagg da ko tagge jikko dane ko daal sa jikko ji kawe na jikko ji rafet na waaye taggewu ko sax askan wala fi mu bokk wala ci giir wala dara waaye jikko ji la tànn tagg ko ci kon jikkookat am na solo lool bu ñuy fàttaliku guddik juddoom gi ñu jàngat ci lenn ci jikko yooya waaye moom mooy ki nga xam ne moom moo leen mottali ña jiitu woon ñëpp di ci mujj te ab di ñëwaat ginnaaw bi mu ñëwee nag yàlla daf koo tànnal aw askan wu baax jaar ko foo xam ne mboolem ña ko jiitu woon ci ay maamam ay nit ñu baax ñu sell lañ ñoo xam ne ñu daan wéetal yàlla lañ bokkaale bu siyaam ay yonent bari ca lool ñoo xam ne ay yonent lañ woon ak ay nit ñu baax foofu la ko yàlla jaarale kon tànnal ko loolu mooy li jiitu moo tax ma daan wax ne ana xiyaarun min xiyaar tànneef laa wax nañ maa tànn jëlee ma ci ñu tànn kon loolu la yàlla suñu borom mooy tànnal ko askan wu baax wax na ci la jaar muy aw askan wu ñu xam wax na koy lim di ko lim di ko lim ba mu maam di gën kawe ci ñu xam muy Adnaan ak yeneen sax waaye nag loolu rek ab junj la ndax yàlla dañuy tànnal nit ki askan wu baax bu ko naree teg ci yoon bu ko baaxal ngir mu gën a yomb bi mu ko tànnalee askan wu baax ba noppi itam daf koo waajal yar ko moom yàlla suñu borom yaral boppam moom yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko jàngal moo ko yar bu ñuy wax nit ak mbaaxam ak yaram dañuy laaj kan moo ko yar waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom kiimaanub yàlla la moom yàlla moo koy melal na ko soob jox ko jikko ya ko soob moo tax ba wax ne addabani rabbi fa ahsana ta'dibi yàlla su borom moom ma yar rafetal yarin bi ma yar kon kooku luñ mën a wax ci ay jikkoom rek bàyyi nañ la ci des am na luñ ci bàyyi moo tax yàlla suñu borom mu koy tàgg ci jikko yi da ko tàgg ndax wax ko ne ko wa innaka la ala xuluqin azim wan ko daal ma nga ca jikko ya gën a kawe ya gën a màgg la nekk moom ndax ni ko yàlla waajale ba ñu laajee sayidna Aysa radiallahu anhu wa ardah lam wax mooy kaana xuluquhul quraan jikko mooy alquraan moo tax kon yàlla suñu borom moom nga xam ne moo yónni sayidna Muhammad sallallahu alayhi waajal ko indi jaarale ko ci askan wu sell askan wu baax jox ko jikko yu gën a rafet tagg ko ca itam xam nañ ne ci moom la wàcce alquran alquran di am njàngale alquran di ay jikko di ay waare da ci nekk lépp di lu baax waaye moom yonent bi sallallahu alayhi moom mooy al ci dox moom moo jëfe alquran moom moo dund alquran moo jox alquran àqam mooy koo xam ne bu wax wala mu jëf ay jëfam ak ay waxam lépp alxuraanu karim lay nekk alhamdu lil haqqil mubin man kanu hudiya ya bi ala kitabil musabiyan ma jami'in amin alhamdu

عطر اللهم قبره الكريم بعرف شظي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شظي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شظي من صلاة وتسليم عطر عطر اللهم قبره الكريم بعرف شزي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شزي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شزي من صلاة وتسليم allahuma salli wa sallim wa barik alayhi wa barakaatuhu mbokk yi taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziar jiital ci nuyoo bi suñu kilifa gu tedd gi Cheikh Mouhamadul Mourtada ibnu Serigne Saliou ñaan yàlla mu yàggal ko fi loolu te wéral ko ba naa lim am ngir liggéeyal ko maamam liggéeyal ko lislaam mu amee ci ndam lu kawe njort te mu ànd ko noonu kon nañ déglu Cheikh Mouhamadul Bachir Faye mu jottali nu kàddu yi sëriñ bi su ko defee buñ noppee sëriñ bi ñaanal ñu ñu yeewee ko ba déwén ak jàmm incha allah bismillahi rahmaani rahim assalaamu aleykum wa rahmatullahi mu ngi tàmbali tudd yàlla di nuyoo nuyoo bi ñu sunu boroom boole mooy ñaanalante jàmm di nuyu ci njëlbéen gi tam sunu kilifa gi sunu sëriñ Cheikh Mouhamadul Mourtada Salih Mbacké di am yéeney yëkkati ay kàddu ci turam di leen sant bu baax ci seen taxawaay yu am solo yi nga xam ne yéen a koy taxawee ci kër gi di ko taxawee ci mbooleem euh, lépp lu ñu yëkkati lu jëm ci doxalin yi yéen a ngi ciy taxaw kemt lay kàttan ah, ci biir cant googu tam wala ñoo ñëw ci cantu gàmmu gi sax ñu sant leen ci seen taxawaay ci liggéey yi nga xam ne weesu na jamono yi ñu weesu ndax ci cosaan diggante màggal ak gàmmu ak euh, xëy na tool yi Xelkom loolu moo nekkoon liggéey waaye bu ngeen xoolee at mi weesu am na yeneen yu ci dolliku yeneen te wane ngeen ci taxawaay yu mat sëg lu mel ni liggéeyu daara ji ci ngaawu seen taxawaay fes na ci lool sëñ bi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ndax boo xoolee diggante bu yàgg kër yi daara yi niñ mel awoon amoon na coppiku ndax yàggaay bee tax waaye ñu yeesalaat ko yeesal loo xam ne ku fa dem ba gis lañ fa def ak lañ fa nam ma def so loo ca def sax da ko xeeb ndax yéene ya ëpp na loolu la ne ci biir tam ci li mu làq ci lañ fa war a jëriñoo tam kenn mënu ko misaal wala di ko xayma sax ci ci ci xaalis walla ab jox-jox waaye nag la fa nekk yéen a ko def kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci taxawaay boobu ndax kat buñ ko xaymaa sax yaakaar naa daara ja la fa dem ci ñi ko doon saytu jege na wala moroom bu tuuti ñeent fukki million te loolu rekk du liggéey bi am na yeneen am na yeneen liggéey yu fi nekk ndax jëmmi ngaabu rek des na ay liggéey ci biir waaye nag dañoo yéene ànd ak sëriñ bi ci mbooleem daara ñu defaraat ko saytu ko lépp dëppoo ak ni war a mel xam nga ne xel koom ay daaraangu ñoom ci daaraangu foofu ah, daaraangi fii ci ngaabu ak ci biir yeneen defaraat yu foor a am te loolu tam ñun ñoo ko war a def ndax war gi gi ñu war nag terewul sëriñ bi di ñu sant ndax loolu waaw góor rek ak ak ak ak yeesal ak gën a ñaax ngir ñu gën a am taxawaay ci loolu kon nañu xam ne liggéeyu gaawu boobu ah, am na fu mu yegg ku fa dem da gis fi mu waaye nag li ñu nësa nas ko mooy at mu jot ñu songu benn ci daara yi defar ko ba mucc ayib ñu jëlee daara génn daara xel koom ci at bii di ñëw toppatoo ko ba mel ni mu war a mel bu déwén jaay ñu jël beneen daara bu jël beneen topp jël beneen di ko def noonu ndax liggéey yi moom du jeex te kat liggéeyu Serigne Touba dégg naa ko ci suñ Serigne bi mu ne jarut a yërëme kenn koo ci yërëm sax daa mel ni gàllankoor la koo ci bàyyi mu demee ci li mu mën ak lu mu Serigne Touba bu koy fay fay ko lu kawe jortam ak lu ci def kon nañu la xasaayu gën a takku gën a xam ne liggéey des na ñu taxaw bu baax a baax liggéey yooyu tam xam nga ne dolli nañ ci liggéey ci sànni yi ginnaaw liggéeyu daara yooyu euh, liggéey yi aju ci koor gi koor gi itam ci taxawaay bu baax a baax ci euh, université taxaw ngeen ci taxawaay bu baax a baax nga xam ne kon liggéey yokk na lool buñ ko gam-gamlee ak nam daan toll waaye lépp rek wane ngeen ci yéene wane ci ay jëf wane ci taxawaay bu mat sëkk loolu sëñ bi gis na ko ñu ngi leen ci sant di leen gërëm ci ñaanal bu baax ah, sant yooyu weesoo tam ñu leen di sant ci euh, nii ngeen taxawee ci guddi gi tey ci mbooleem waajtaay ndax xam nga màggal ak gàmmoo day leen ci jegewaay bi waaye waajtaay yi feeñu ci diggante bu gàtt bi feeñu ci ci xeeti bernde yi ci mboolem xeet yi lu mën a doon moo xam ne ñuy jottali ko di ko naan wala yi lekk taxawaay bu am solo seen jëf feeñ na ci bu baax a baax xeeti jaamu yàlla yi tamit tubaarkàlla feeñ na bu baax a baax lii ñu màggale guddi gi tey wane na ko dëppoo ni ko Serigne Touba jàngalee ci xasaay yi ndax sëñ bi li mu bëgg mooy ñu màggal guddi yonente bi sallallahu alayhi wa ah boo xoolee Serigne Saliou ci jamono bu ko daan fàttali saa yu waxee màggal bu koy yëgle ca ca ca ca cat la ci lay ci lay toftal gàmmu nga xam ne yitte ji mu waaye nag loolu itam nemmiku nañ ko wax dëgg yàlla doxin wi ñu doxee nuru na ko kon loolu ak cant la kon li nga xam ne moom lañu war a xam ci dundal guddi gi mooy ni ñu ko Serigne Touba jàngale defe nañ ko noonu waaye wax gi day gën a yeesal gën a feddali ko ba kenn ku fi ñëw buy yóbbu buy dem xam-xam li doon defi lu mu doon xam li mu fi jële lu mu doon sëñ bi dafa wax ne ci dundal guddi gi ne guddi la goo xam ne day guddi gu màgg la guddi gu barkeel la guddi gu warmal la moom di ko màggal lu war la rawatina ñi nga xam ne dañoo jiite aw nit kon loolu dafa mel ni mënta ñàkk warteef la ci jullit bi ak li nga xam ne moom la ko yàlla defal ci ay ngëneel te jaaree ko ci borom guddi nga xam ne bu dutoon moom loolu yi jàpp bi waaye yàlla sunu borom moom bu dogalee ay dogalam da koy wutal ay sabab yoo xam ne ci la nit kiy jaar ba mën a jot ca loolee ah dundal gi ci sunnatam ni ko Sëriñ Tuubaa waxee te ne nañ koy màggal ci sunna sunna mooy di ko teg ci lépp lu génnul lislaam loolu mooy sunna nee na ku ko defe noonu màggal gi nga màggal guddi gi da lay wommat jëme ajjana màggal gi da lay wommat doon li say xéewal waaye nag loolu ki ko sellal te màggal ko moo koy am te tafet nañ ci jortu lool ci niñ ko tàmbalee ba fii ñu yegg si nii sëriñ bi waxaat ne képp koo xam ne màggal na guddi gi Euh, guddi euh, sunu yonent yonente bii nga xam ne mooy buntu njub booy wut njub ci mo ci moom ngay jaare kookii kenn du ko xisaab kera yowmal xiyaam kon na ngeen warmaal guddi gi te màggal ko ah, kon lu bari la daanaka jàng nañ xasida gi mooy jasbul xulóob yu bari si la sëñ bi dafay wax yooyu yegg na sax ci wax ne képp ko màggal guddi gi guddi ngën gi mii di ahmad mel na ni ku shahid shahid mooy ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo aar lislaam dimbali yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba lislaam mucc bañ mën cee jot nee na xam nga ne loolu lu jomb lu loolu jafe la waaye loo xam ne boo ko màggalee am tuyaaba joojee loolu jar naa sellal jar naa màggal jar na foo nekk nga bàyyi nga doon def ñëw ànd ko ak ñi koy def rawatina di ko def ci keppaaru ki nga xam ne moom nga doxalee sa diggante ak sa borom mooy sa sëriñ ndax loolu yaakaaru la ñi nga xam ne dañ fee def seen wërsëg kooku seen bopp rek lañ ko defal dinañ leen sant gërëm leen ci aada yi waaye loo ci def rek yaa ko moom Sëriñ Tuubaa dafa wax ne képp koo xam ne joxe nga ci dara ci guddi yonent bu tedd bii nga joxe sa alal waaye nag jubluwoo ci puukare mbaa yàq mbaa dara waaye danga koo def rek ngir jëm yàlla alal jooju lu mën a toll donte dërëm la sax yow mel nga ni ku teew ci xeex ya ànd ak yonent bi ak métti métti ya nga muñ ko ba rawale lislaam léegi am nga yoon bu toll loolu nag ah, lu am solo la bay ah, gi nga xam ne nag moo ci topp ku def loolu yi nga xam ne donte yoroo ko sax waaye waaye teew nga soxal xol teew na maanaam eh, wane nga yéene sax am nga tuyaab képp koo xam ne teew na fu ñuy màggale guddi eh, gën gi mu néew màggal ko ak ña fa ne di def ay mbégte bu amee lu am suukar indi bu amee ndawal indi mooy lu ñuy lekk ak lu ñuy naan mën na koo firi nee na nit koo gii am na nga ñaay lu rëy loo xam ne da koy saxalal ay mbégte te loolu dootul dagg mukk mukk mukk lu tasee mukk lu koy lor te loolu gis kon lu bari la loo xam ne day dalal xel te loolu lépp mën nañ koo dalale suñu xel rafete ko jot si ni ñu màggale guddi gi ci keppaaru Cheikh Mouhamadul Mourtada Saliou kon nañ rafet njort ci guddi gi Ah, ah, ci loolu moo ko waxee léegi ah, li nga xam ne nag euh, moo des mooy euh, ku ne xam na ne waxtu yi bu tollee fii euh, tool yi dañ koy xalaat tool yi dañ koy xalaat noonu ñu ko waxe woon nag at mi weesu dana méngoo ak nii mu demee ndax liggéey ba ma nga fa waaye jàppaguñu dat boo xam ne ci lañ fa war a jublu ngir defare ko waaye su yëgsee ba sëriñ bi jàpp ko ah danañ ko yëgle ci yëglewukaay yi nga xam ne moom la daara ji di jëfandikoo ci xeetu réseaux sociaux yi ak yi nga xam ne ay canal de communication la danañ ko ci jaarale ba ñëpp dégg nga xam ne di sàngam la lañuy def nangam barab sàngam lay doon kon li am solo ci jamono ji mooy nañ ko bàyyi xel xam ne suñu mbir la te ñoo ko war a def kenn ku ci nekk muy dox di ko doxaale muy yéene di ko yéenewaale fas ko te xam ne biroom la kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax euh, loolu mooy kàddu yi nga xam ne moom la bëggoon a wax ci turu sëñ bi ah boole ci tam di gën a feddali loolu nga xam ne waxoon naa ko ci tàmbali bi waaye dama koy gën a feddali mooy e, e, jëmmi liggéey yi nga xam ne moo aju ci daara yi ndax xam ngeen ne daara mbirum masuliya la mbirum responsabilité la waaye sëriñ bi ni mu ko jàppee lu rëy la ndax euh, am tuut tànk yaakaaroo fenn indi ko fa nga yaakaar joxe ko fa léegi yow euh, daa mel ni génnoon nga ci sax waaye moom xam li mu xam loolu xam doomu aadama ni mu amee solo ak li mu war a mën a def ak li yàlla denc ci moom ci kàttan mu xalaat ne dañ leen toppatoo lépp luñ mën nañ ko ci def bu bu ëllëgee ku fi jógee xam ne jëlee nga fi dara nga xam ne bu ñu demee ci yi ba mokkal alxuraan ñu jël leen wéyal ak ñoom ci wàllu xam-xam wéyal ak ñoom ci wàllu njàngum xarala ba kenn ku ci nekk bu fi jógee du naw kenn ku mu mën a gis te du am complexe ci dara jàngal ko làkk yi jàngal ko civilisation yi ba nga xam ne fu mën a dem du fa doon gan tey xam fi àdduna bi toll loolu lu am solo la loolu mooy li nga xam ne sëñ bi mi koy xalaat te mi ngi ciy dox ay jéego waaye woo na ci ngeen ñëw ci te xam ne foofu la mbir yi ngeen ànd ci ak ak moom kenn waru cee xaar kenn ah, léeg-léeg nag ah, tam metti na ci yarkat yarkat li gën a metti ci moom mooy eh, eh, mu yar ba tollu fenn Euh, gisatul ki muy yar te léeg-léeg loolu day nekk ci ñenn ñi maanaam yar nit ba mu mokkal alxuraan ak loolu li mu jafee ak toppatoo ba ak li ci aju mu tàmbalee bind maanaam wala mu mokkal jékki-jékki gisatuñ kooka ñu buñ ko lijjantee mu dellu ci waajuram te waajur yi doxu ci ay jéego wala wanewut luy wane ne kooka dafa war a delsi loolu lu metti la loolu lañ ko bàyyi xel ndax njëbbal yi ñu jëbbalu ngay jëbbale sa bopp àdduna ak alaaxira amatoo sax dara ci sa bopp yow waaye waxuma la nag ki nga xam ne danga koy joxe ñu teg ko ci aw yoon woo xam ne yow bu fekkoon ne lu ñuy laaj dara la doo ko mën ndax loolu lu seer la ñi nga xam ne defuñu ngir yàlla waaye dañuy def ngir àdduna wala lu jëm ci ñoom buñ ne buñ naree toppatoo nit ba mu egg fenn fi boo néewee doole doo mën a fay loola waaye nag loolu lépp xoolu ko sëñ Tuuba la xool sëriñ Saliou ak taxawaayam bëgg a dimbali nit ñi rek xettali leen mi nga xam ne moo fi indi woon yonente yi ci loolu ci la nekk kon loolu ñun ñun ñëpp nañ ko xam te te te jàppe ko noonu ah kàddu yi mujj yi mooy di leen santaat di leen gërëm ah, ah, ci seen taxawaay ci mbooleem liñ fi yëkkati lépp sant di leen gërëm ci gàmmo gi ak nii ngeen ko doxalee ca màggal ba fi mu ak liggéey yi nga xam ne moo fi dolliku ci liggéeyu cosaan yi loolu lépp sëñ bi gis na ko mi koy bàyyi xel mi koy bàyyi xel jërë leen jëf xam naa ne bu ñu wàccee kàddu yi ñu jox bi mu ñaan waaye balaa loolu tamit euh, mi ngi gërëm euh, ak sant tamit mbokki boppam yi mbokki boppam yi nga xam ne mënoon nañoo euh, fu ne mën nañoo sax gàmm moo fañ ne ay nit fekk leen fa xëy waaye dañoo bàyyi loolu ñëw fekk si ko dégg nga bàyyi lépp ñëw fekk si ko loolu lu rëy fi moom la ñu ngi koy bàyyi xel gis na ko jàpp na ko bu baax a baax a baax loolu Euh, mënuñu ko woon a ñàkk a wax mm. lu am solo la ci kóllëre yi nga xam ne ñi koy dundal ñu koy dundal te sunu borom fonk na ko lool moom it fonk na ko jàpp na ko nag euh, ginnaaw jamono dafa xat te yu bari euh, sëñ bi dina ñaan waaye bu ñaanee mooy ñaan bi nga xam ne mooy ñaanu yewee gi ñëpp nañ ñaan mooy ñaanu yewee gi ndax yitte yu bari na defee kenn ku ci nekk tool dundal gu ñu wéyal ba fajar ci teewaayu sëriñ bi ginnaaw julli gi sëriñ bi ànd ak mbégte lool ànd ak tawféex gu yaatu yëkkati kàddu jagleel ko mboolem mi fi teewoon ñëpp waaye it jagleel ko mbooleem jullit yi ak taalibe yi teewlu ñëpp jëm ci li yitteeloon sëriñ Saliou Mbacké di liggéey ngir daara yi daara Xelcom ak daaray Ngaabu soññe yu am solo tukkee ci sëriñ bi yoo xam ne moo jëm ci yeesal gi ci taxawaay bi ak ni nga xam ne noonu la ci mbooloo mi war a taxaw yépp di ay soññee yu jëm ci njàngum alxuraan ay soññee yu jëm ci taxawu ndonga yi ay soññee yu jëm ci taxawu daara yi sëriñ Moxtala Mbàkke wéyal liggéey bi nga xam ne sëriñ Saaliu Mbàkke ci la nekkoon jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom li sëriñ Touba defoon ci mag ñi la sëriñ Saaliu waxoon wax joojee ak yooyu lay kàddu la sëriñ Moxtala di wéyal njàngaleem ndaw ñi tarbiye leen yar leen a ko yitteel bokk na si li gën a fës ci yële soññee di ay soññee yu fës ci guddi gu tedd di ay soññee yu fës ci guddi gu màgg guddi gu ñuy màggalee gën gi mbindéef yonent bi alayhi salaatu wassalaam